ma ki nga xamante ni moom mooy tool yi moom moo ñëw noonu ci kanam monté bat ki nga xamante ni moom mooy Yoro Mbodj mais attention Lam Toro mu ngi en deuxième position toogu ndof ak fas bi nga xamante ni moom mooy xaa euh, ki nga xamante ni mooy Maman Soda Diaw mais ki nga xamante ni moom moo nekk en quatrième position mooy fas bi nga xamante ni moom mooy tànneef mais daal li wóor ba wóor moom mooy euh, tool yi moom moo génn mais attention dawal nañ ki xamanteni mom moy mama Soda jaw wala mama Soda jaw mom mo genn ñu dawal ki nga xamante ni moom mooy tooli mu ñëw lamtoora ak yugul bur and nañ 3e ak 4e position laay mo ngi non ki am der mo genn moy toli waye ekini waaye équipe Matum 119 ki nga xamante ne moom mooy Lamtoro kenn ki féete kanam ñaar ñi féete ci côté yi waye ba rawante bu rafet lañu rawante actuellement toli genn 2e position ki fa nek mama soda jaw léewul buur lamtoora ak ki nga xamante ne mooy deme daawul demba a ki nga xamante ne moom mooy doomu guyaar ñoom nekk nañ benn fas waaye lamtoora jël na lim bi yëgul buur féete na ci arage bi deuxième position moo Dieye dawal na ko damel daawul demba tey fi mu ñëw baax na ak toog neexaay daanaka ñëw na deuxième position ki fa nekk moom moo fa nekk troisième position lamtoora quatrième position ki fa nekk doomu guyaar cinquième position mampenda waaye damel daawul demba ak yëgul buur daaw nañ benn fas ñooy tourné si bi Yeumbeul Mbour moom moo génn suivi de Damel Daaw Demba mais attention dawal doomu Guyaara en troisième position Mampenda en quatrième position ci li nga xamante ni moom mooy arrage bi mais Yeumbeul Mbour tey boo xoolee ki nga xamante ni moom moo ko war moom mooy Modou Dieye joxe na li nga xamante ni moom mooy deux longueurs mu nekk doomu Daram Sarr par Rainbow Quest Brusun Group Red Gotter Nasrullah Ah ouais deuxième position Damel Daoudembo. Demba troisième position Dom Guyaar attention en quatrième position qui fait que en troisième position wuti Damel dao dembo, mais yógul buur ba a boo xoolee jockey bi nga fait ne moo de de mais Damel Dao dembo, en deuxième position suivi de pende voilà rakku Medina mu ngi ñëw tourné ci li nga xamante ni mooy 200 mètres bi rakku Adja Cheikh tourné ci 200 mètres bi waaye rakku Taïf ak Bayla tourné na ci 200 mètres bi mu nekk doomu Daram Sarr par Rembo Kess Bulu Sunguru Rasgot Nasrullah nekk fas boo xamante ni am na si lancé wóor a wóor a wóor logo buur mi ngi ni takk na numéro 11 de plus en plus fort qui va signer sa quatrième réalisation devant fas bi nga xamante ni moom mooy Mampenda en troisième position Damel Daaw Demba quatrième position Xare cinquième position Doomu Guyaar sixième nekk fas bi nga xamante ni moom mooy Chérif Landoy yëgul buur ñëw na gën a conserver li nga xamante ni moom mooy place favori malgré reposement bi nga xamante ni jóge na ko mais tey nag gis nañ ni Modou Dieye moom moo ko war laaj. moo ngi noonu Modou Dieye moom moo ko war signé na première victoire am ci li nga xamante ne moom mooy moolu ñetti at si année nga xamante ne moom lañ nekk. waaye yëgul buur siyee na cinquième victoire am ci li nga xamante ne moom mooy ñu moolu ñetti at yi wane na li nga xamante ne moom mooy suprématie am ak 2 minutes 22 secondes la ko daal def ak li nga xamante ne moom mooy 50 kilos la ko daal def waaye ki nga xamante ne mooy demee daaw dem ba na li nga xamante ne moom mooy avancement mampé na deuxième jëlaat na li nga xamante ne moom mooy place am waaye ki nga xamante ne moom mooy doomu moom tamit daw na avancement lamtooro décevoir na complètement ndax tey ci septième huitième la daal retrouvé kon moo ngi noonu félicitation équipe Maktoum góor a ci am ki nga xamante ne moom mooy propriétaire en même temps na serve waaye ki nga xamante ne yëgul buur doomu numbe la war naa mën a doomu daram saar la war naa kaa mën a def waaye ki nga xamante ne moom moo ko deuxième moom mooy Mampenda doomu ring for peace la moo ngi noonu trois ans yi daw nañ ba téye ki nga xamante ne moom mooy yëgul buur def na ko comme nam ko daan defee Modou Dieng ngi noonu ak li nga xamante ne moom mooy euh, juge yi yi moo ngi noonu ngeen gis ka moom nga xamante ne la rakk la ci ki nga xamante ne mooy Momat bi ñu amee 800 daal di jubile gis nga moo ngi noonu di wax ak rakkat yi moo ngi noonu moo ngi noonu moom moo tànn ne bu rakkat yi moom moo war a war fas yi moomar jéye ngi noonu nga xamante ne zoogel la boo xamante ne ndaanaan la moo préparé fas yi jël rakkat yi daal koy moo ngi noonu ngeen gis ne rakkat yi ñoom ñaar daanaka ñoo nduróo ni nga xamante ne noonu la ñuy waree Modou Dieye moo Momar Bobot mooy Modou Dieye ñoo nduróo Kéba Dieye ay doomu Kéba baay def na fi lu lu nekk ci kon ñoom bu ñu ñëwee jaaj tànk yi war naa mën a nekk félicitation écurie Maktoum El Hadj Ndiaye Ciss Ndaw propriétaire bi PDG Aiguiri Maktoum ak ki nga xamante ne moom mooy Gora Thiam propriétaire bi waaye moo du ngi koy félicité bu baax a baax entraîneur bi tamit di ko félicité ndax liggéey la boo xam ne liggéey bu am am solo la daa def ci fas yi ndax fas yi soo xoolee bi mu duggee ci rek léegi yàgg na en général